ci sport ñu gis ne amna dégo diganté diggante ak ligue sénégalaise de football professionnel lo jëm ci walu diffusion match championnat kon légui mën japp né euh, match News football fii Sénégal waa TV stv lëkkaloo ak ligue sénégalaise de football professionnel dinañ ko wane ndax sénégalais c'est un match yoy quoi. jéego am na ndax bu démé ba télévision privée ba di 2 TV signé contrat ak ñi nga xamante moy euh, ligue sénégalaise du football professionnel pour diffusion match yi nga Diego ne jéego am na lii lañ doon xaar moy suñu télévision di diffuser suñu championnat yi ndax bu 2 signé ñëwee beneen télé mëna ci top topp waaye nañu dem signer commencé ñoom tamit transmettre donc c'est comme ça ñu commencé nii mun promouvoir suñu football ndax affaire bi publicité la boo amul maanaam boo amul comme da ngay nangoo fës. Euh, affaire bi non la légui léegi ak lima la wax dem rek ak réseaux sociaux yi boo booy fësal gars yi dañ lay téla xam donc euh, Sénégal ñu ko tek ba champion d'Afrique la té en plus pays football euh, pays football donc c'est normal ñuy diffuser suñu championnat ndax yenen rew yi ëppee wuñu lu bari ndax pays football quand est-ce que mënuñu wax né euh 2 des yi am lu takku li nga xamanténi bi euh jox nañ ko wa Ligue sénégalaise de football professionnel. def nañ ko bokk nañ ci manam andi lañ par part. Euh, c'est une part de pierre à l'édifice ndax comme def nañ lo xamantene ñu ko doon xaar sénégalais pour mëna a ndax euh, ñen ñi canal lañ doon japp pour seetaan yenen championnat donc nous avons télévision pour xamantene mo ñuy diffuser lolu noonu donc euh, dañuy wax euh, félicitations à la ligue sénégalaise de football professionnel et félicitations à la 2 TV